ñépp ñi gëm nag war nañu di booloo ak yeneen chrétien yi di jaamu suñu borom te di séddoo lépp ci li nga xam ne kàddu yàlla gi la te di dox di ñaan war nañu liggéey ndax liggéeyu boroom bi dem ci kanam te ñuy laaj suñu borom mu may ñu ndax ñu mën a jege ci borom bi yàlla ci boppam dafa yonni Jésus mu dee ci bant ba ndax ñi nga xam ne seeni yépp am jam dañuy booloo itam di jëlandoo reer bi ñu yàlla bayal ñu tuddee reerum Pàkk di fàttali ko deeyum borom bi ak ndekkitem suñuy bokk di lekk maanaam ci lekkuwaay bi ak naanukaay bi suñuy lekk ci lekkukaay bi dañuy fàttaliku deewu almasi bi te suñuy naan ci naanukaay bi dañuy fàttaliku nu mu tuure deretam ci bant ba